mais ki nga xamante ne day xool gis naaja bi ba pare naanal naanal la mhm. non ma te moom lii mu bëgg ma dégg ko bu ma fa déggee ñu xeet ma dëggantaan man nekkuma si loolu mhm. waaw du ma triser nag mhm. te damaa bëri yërmande nit amul xolam day rafet mais su amee rek tiwaawoon am kat ak feneen fu dul ndeysaan d'accord nga ni làmb dund ko dafa metti waaw lan nga mos a dund loo xam te ni ci làmb metti na la ci menace wala wax ju ñaaw wala leen non xam nga li ma mos a dund ci làmb lu metti loolu loolu loolu wax ko sax dafay teel parce que mos naa romb benn booy ñu xaañ ko si làmb mm-hmm. ma daw fekk koo xamante ni ma jaala comme nii mm-hmm. ma ne ko sawaay dimbali ma ma woo sàppoo yi moo yóbbu booy mm-hmm. dana ma demal wërali ko sa bopp dem bopp sama yaram daw ma mee booy bi yóbbu ko sama taxi teg ko fa booy bi taxalaat affaire bi ay dret taxi keroog maa ngi ko yóbbu Dominique bi xam nga ñaar laa si fere trente neuf mille da xam ma booy sa xaalis bopp ba pare booy bi miiraat xam ma kër ma yóbbuwaat ko sama kër si risque boobu euh, loolu moom gën a metti may tax loolu moom euh, réccuwuma ko mm-hmm. parce que kenn fekkuma si at kenn dimbaliwuma si tey man dong la social boobu waaw xaayaan ma nga Italie mi ngi Italie waaw la xam ko jaru parce que nit looy def sa a tax loolu léegi xol léegi dem na ba toll ni yow mën nañ ne sauver yaa sauver vie waaw mën la ma sauver la ëpp hmm. dama doon ji mënoon naa lekk loolu moom mhm. te xamul lu ma si yàlla may de mhm. mais na si bàyyi xel te pourtant bu ma ko waxoon kenn du fay mhm. benn seede bi ñëpp moom lañ lay seedeel làmbaloog analyse am da koy teg ci dëkk dëkk moo moo indi fii ma nekk nag dëgg neexul waaw dégg naa si dëgg ne commentaire yi lañ doon lire mais kuy naaw say dunga lii fa nga jëm sori ku bon ku bon rek la ku baax laay waxal yenn saa yi ma wax ne la xaayaan ku dégg séeréer parce que damaa bëgg ku baax ku dégg moo tax ma naan la xaayaan ku dégg séeréer kii maa ko man taay boulevard <laughs> non man man Ouzin ma lay yor kii maa ko man kii maa ko man père kii. père kii nee naa ko moytul ma moytul ma njool mu ni teg. ba tey mi ngi wax yow la gis noppi. ah bon boobu ba man nee naa foo ko jàpp mu jóg parce que doole ji ma ko jàpp ci laa koy daan jël mais ki maa ko ëpp doole fuuf aller retour li ma ko sudee laa ko ëppee doole mais nag moytul ma moytul ma ndaamal lii <laughs> père wax laa valeur wax laa qualité ci boobu moytul ma ndaamal lii de daa bëri pexe de bëri na pexe de mais ki maa ko mën waaye moytul ma njool mu ni tekk bu téye sa loxo fàq la nga bañ mu doon non njool mu weex la rek kii xam na ni mu doon ci làmb ji njool mi moom weexul moom fa mu mujj xam naa ko de waay gën waay kan la lay nural yëngu de kan la lay nurool. non xaw ko kum lay nurool ci mbëri. Jaguar Jaguar. kii kum lay nurool ci mbëri. Jaguar man daal ci digg géej bi billaay fii laa lay jëlee nga dem fële ci saako. jeex na yàlla xam na ne boo jëlee sama tànk gis musiba. loolu yëpp yow fu ma jëm non non. sama tànk yi ni laa la koy laalee léegi ni laa góor laa ji taxawaay bi baaxul. voilà ah dal na ci waaw dal na ci boobu bi. xoolal boobu la la la. kii de fi mu doon ba nga ñëw. dara dégg yàlla dafa neex. maa ngi wax sama point point faible sax. te du yoon. tànk bii nga ma jiital damaa. damaa gën a neex barki alxuraan kay mënoo ci dara. billaay mënoo ci dara. dégguloo li ma la wax. ginaar la. kii foofu ne tax ma ma ma ma ma lépp ngay def. tel balaa ko daan bu yàgg yow bu ma nee coppet nga ma bul wax bul wax bul wax. am samay loxo am samay loxo. am samay loxo am samay loxo. am samay loxo. dóor tànk yu xew yi boo dawee ñëw laa boo dawee ñëw ma dóor la tànk nii. ñëwal ñëwal. déedéet dama lay laaj ñëw ñëwal ñëwal. fan laa ñëw jëm. noo may dóor a tànk rek yow ñëw yow bul xalaat foo jëm. bul xalaat foo jëm boo ñëwee fii. te duñu yaakaar fa nga jëm bul jëm foofu. kii de baax alxuraan boo ñëwee. amul réaction bés boo ñëwee ci laabu ji nga njëkk a ñëw moo la may chance mais boo xaar moom na si jàpp la billaahi nga jóg li ma la wax doo ko gëm eh, eh, eh, billaahi mënu laa def boo ñëwee laa la wax ma daal mais boo xaar ba mu ñëw bu la jàppee dama lay yëkkati bu yàlla dogaloon sax waaw te bu la neexee nañu takk ngemb kan bu la neexee yow yow bu la neexee loolu na naar ci guuxum so looloo ñu gën a arrangé di dem parcelle léegi man bu la neexee tàllal sa moto demuñu tey demuñu tey <laughs> ñu am xew. yow kii ñaata ko mun a amee kii ak amul xew balaa xew ba la ñuy bëre jiili. déedéet bul dalal sa xel kii barke alquranu karim jiitu ma ko fifteen. ah man damaa gëm ne maa ko mën fuuf. moom xamul lool na kii maa ko mën dama koy dama koy daan dem sangu. waa léegi suba. suba wol xas mu woo jiili ñu ñëw ñu dem. waxal kay eh, waxal ban eh, eh, léegi suba kay suba vingt et une heure. incha allah fan ban géej. vingt et une heure ñu dem jàmbaar jàmbaar même man ma nga bëre napp de dama lay napp de ay ruux yooyu sa téléphone xam naa musul fay musoo am problème mu réseau waar ke sa xas su ko neexee nañ def trois combats xam nga ku daan sa ñett sa yaa mën déedéet eh non non duñ def benn combat ñett la ñuy def non lu amul su boobaa wérante dootul amaat non amul amul la am la amee. Ah. ñett la ñuy wérante dootul amaat. Cheikh na nga def vingt heures waay vingt heures. non vingt une heure baax na. vingt une heure baax na ku ne def li nga def. vingt une heure baax na day fekk ma liggéey ba wàcc vingt une heure lay doon. vingt une heure. ay suba ay suba. vingt une heure jàmbaar. rendez-vous bi. boulevard la <laughs> non man man Ouzin ma lay kii maa ko man kii maa ko man père kii. père kii nee naa ko moytul ma moytul ma njool mu ni teg. boobu ba tey mi ngi wax yow la gis noppi. ah bon boobu ba tey mi ngi tararari. père man nee naa kii su ma jàpp mu jóg. foo ko jàpp mu jóg parce que doole ji moo ko jaay ci laa koy daan jël. waaye ki maa ko doole foofu aller retour. li ma ko sudee laa ko ëppee doole mais nag moytul ma moytul ma ndaama lii. père wax la ay valeur wax la ay qualité ci boppam. moytul ma ndaama lii de. daa bëri pexe de. bëri na pexe de. waaw baax na daa bëri ki maa ko mën. waaye moytul ma njool mu ni tekk bu téye sa loxo fàq la nga bañ mu doon. non njool mu weex la rek. kii xam na ni mu kii mu doon ci làmb ji. njool mi moom weexul moom. fa mu mujj xam naa ko de. waaye déedéet la def. kan la lay nurool yëngu de kan la lay nuróol. non xaw ma ko kon kum lay nuróol ci mbëri. Jaguar Jaguar. kii kum lay nuróol ci mbëri. Jaguar Jaguar. man daal doon ci digg géej bi billaay fii laa lay jëlee nga dem fële ci saako. jeex na yàlla xam na ne boo jëlee sama tànk gis musiba. loolu yëpp yow foofu fu ma jëm non non. sama tànk yi xoolal nii la koy lalalee nii téye góor laa ji taxawaay bu baax voilà. ah dal na ci waaw dal na ci booboo bi. xoolal boobu la la la. kii dara dégg nga yàlla dafa neex maa ngi wax sama point faible sax. te ah. muy wax tànk bii nga ma jiital damaa. waaw gën a bàkki alxuraan kay mënoo ci dara. billaay mënoo ci dara. dégg loolu li ma la wax. ginaar la. kii foofu ne cat ma ma ma ma ci dóor mu lay tel. lépp ngay def. tel balaa ko daan bu yàgg yow bu ma nee coppet. bu ma la wax bu ma la wax bu wax am samay loxo am samay loxo. am samay loxo am samay loxo. am samay loxo. dóor tànk yu xew yi boo dawee ñëw laa boo dawee ñëw ma dóor la tànk nii. ñëwal ñëwal. déedéet dama lay laaj ma dóor a tànk. ñëwal fan laa ñëw jëm. noo may dóor a tànk rek yow yow yow bul xalaat foo jëm. bul xalaat foo jëm boo ñëwee fii. te duñu yaakaar fan la jëm bul jëm foofu. kii de baax alxuraan boo ñëwee. amul réaction bés boo ñëwee ci laabu nga njëkk a ñëw moo la may chance mais boo xaaree ba mu ne si jàpp la billaahi nga jóg eh, li ma la wax doo ko gëm eh, eh, billaahi mënu laa def boo ñëwee laa la wax ma daal mais boo xaaree ba mu ñëw bu la jàppee dama lay yëkkati bu yàlla dogaloon sax waaw te bu la neexee nañu takk ngemb